ñu bàyyi xel euh, ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo fi dëkk yem fi waaye si biir si suñ doxalin dañ leen dee bàyyi gannaaw ngir euh, benn wala ñaari mbir yi tax dina ñoom nekkuñ ci euh, seen cër yi mat ni suñ cër yi matee waaye ñu fàtte ne ñun tamit doomi adama la ñuy ñun te ñu yaakaar ne ñoom seen man-man du aga si suñ man-man te mu nekk njumte bu rëy